asalaamaaleykum fidèle téléspectateurs Touba TV Fatou Bintou Massamba mo dess waat di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm way diko sakku ci yeen di nuyu suñu représentant xale ci Dakar di suñu DG di jëriñ Mbacke Faye nuyu bu baaxa baax euh, le directeur euh, monsieur Pape Diène Ndiaye toute l'équipe de la production bi nga xamantani bi tubaarkàlla ñu ngi def liggéey bu am solo ñu ngi leen nuyu di ziar bu baaxa baax duñu ñu benn le directeur des programmes monsieur Djiliba Madialis ak euh, sëñ Amidou Diop mi ko bokkal waaye nag di nuyu yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi ak ci bitim ko baaxoo di ko defee seen émission daan fii nga xamante ne bii moom mooy Tivaouane Peulh Touba TV s'est déplacé ñëw Tivaouane Peulh ànd ak seen émission daan doole ñëw fekk si fi une brave dame boo xamante ne bii nee naa leen ku gëm boppam la macha allah muy xale boo xamante ne bii xam na fi mu jëm am na ay objectif am mu dar koy teg ci taabal ji ci loolu la nekk ba tax na tey Touba TV ñëw fekk si ko fii. ci Tivaouane Peulh euh, émission daan doole nag xam ne kii jàmbaar la daat ko fekk fii ci këram waaye nee naa leen liggéey bi du ma ci wet benn yoon ndax maa ngi koy ànd ak sama caméraman bii nga xamante ne bii nee naa la caméraman de tous les temps macha allah di baax a baax téléspectateurs yi nga xam nag dañuy bàyyi xel saa su ne ñu ngi ñuy topp macha allah di ñu conseiller di wax ci li nga xamante ne bii moom mooy jëmale liggéey bi kanam ñu ngi leen di fekk fa ngeen nekk ne leen salaamaaleykum di wax ni tey nag Tivaouane Peulh am na gan ndax Touba TV moo fi ñëw ànd ak daan doole ñëw fas yéene wane jaar-jaaram daan doole nag 14h incha allah di ko am nee naa leen daan doole nag amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw lu waay di def rek te di ci gis boppam bul ko xeeb daan doole incha allah bis dina ñëw mu fekk si la. wax naa leen ne daan doole dina génn dina dem nekk ci biir réew waaye dina bitim réew fii nag tey tey jii incha allah ci Tivaouane Peulh dañuy daal di dugg ndànk nuyonteeg suñu invité du jour bi nga xamante ni moom mooy soxna Ndeye Ndiaye ñu gën koo xam ci soxna Ndeye Ndiaye Balla Gaye Ndeye Ndiaye Balla di yëngu ci li nga xam ne moom mooy wàllu musóor façon musóor bu ne musóor moderne comme musóor traditionnel lépp lay defar waaye ci lu mu ci mënti doon rek dinañ waxtaan incha allah ci jaar-jaaram xam lu ko inspiré fi mu jógee ba fi mu yegg si incha allah lépp dinañ leen ko indil tegal leen ko ci taabal ji kon xaar leen ñu léegi-léegi rahmatulah soxna Fatou Bintou Samb. noo def waa mbaa yaa ngi si jàmm borom Touba TV. namoon naa la gëj naa laa gis. waaw borom Touba TV tey Touba TV dala seet. ah macha allah man mu xeebu mii ngeen déplacé wu ñëw ndax man. ay waay ñoom la ñuy jël incha allah. ndeysaan wax ngeen ne wane seen liggéey. ndeysaan te yow na ni jàmbaar nga. ndeysaan ah, ñun nee naa la duñu jug mukk. dëgg la di seet koo xamante ne dëgg la dëgg la ñun ku ñu jug wut la rek mhm. xamal nit seetlu na la seetantal la mhm. xam ne bi yaa nga ca yoon wa ñu ñëw fas yéene ci ànd ak ndax nag exemple nga mhm. te bëgg nañu jeunes yi nga xamante ñu ngi toog di la seetaan nga jox leen exemple boo xamante ne xam ne bii liggéey rek mooy fay ndeysaan lu dul liggéey du fay wallaay dëgg la loolu ah macha allah lii moom kontaan naa si ndax mënoon na leen si bañ a fekk mais Touba wane ngeen ne Serigne Touba ngeen bëgg ngeen ñëpp su ngeen sañoon ñëpp jëm ci kanam xeebu leen kenn macha allah ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax déplacement bi moom mhm. vraiment kontaan nañ ci mais nag nii la jeunes yi moom ah liggéey rek lañ sant gars yi de liggéey rek ah, amul baay ndax ku ñàkk jëriñu amul saral waaw gis nga yegg si leen ah waaw amul bàyyi de vraiment amul saral amul bàyyi ay ca bismillah soxna si yegg si soxna Fatou Samb <laughs> borong Touba TV benda yang mari Gaye <laughs> aca yegsil waaw fii de mooy daara ji sori ba bëgg a de Tivaouane Peulh ngeen déplacé wu ñëw ba Tivaouane Peulh ah c'est grave Excel togal ah sori no de vraiment kontaan nañ ci déplacement bi moom dëgg yàlla bitim réew ya. jëm asamaan ki nga donc rek maanaam mbégte ñëw fekk si la. dëgg la. yow li nga nekk mënu yitteel. Mhm. macha allah mooy daan doole bi nga xam yaa ngi koy def. gëm sa bopp te liggéey ñàkk jariñ. dëgg la donc soxna Ndeye Marie ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax. di la ziar ñu ngi delloo ziar. waaw ah, xam ne Touba TV nag mi ngi jàkkaarloo yow di la seetaan. ndeysaan. waaw ñu bëggoon a xam kan mooy Ndeye Marie ak origine yi aussi. waaw waaw nday nday mari balla gay nak lañ may woyé man nday mariam la tuddu nday mariam mais nday mari balla gay lañ may woyé ndax sama waa kër yaay ñoo may woyé nday mari sama waa kër papa di ma woyé nday mariam nday mariam waaw sama drosine kawal xalam kawal waaw kawal xala juddo magge pikine yero xaar yalla ci sama mam machallah sama mam moma yar voilà <laughs> fi mom dekk way mo ñu fi indi rek mu ngi non voilà waaw mhm. tu am peu Tiwaawoon kon dëkk mhm. sama ñaari doom ñoo fi nekk. macha waaw fii moom ah xewalu yàlla gu ñëwoon la rek ñu jënd ko depuis 2012 am lu ñu fi def rek ñëw jëm fa yegg si noonu ci daara ji toog nii xaar yàlla. macha <laughs> euh, jaar-jaaru que lu ci am solo la. Mhm, mhm, surtout. ndaw moom. dafa war a am jaar-jaar parce que Sénégal dañu baaxoo te boo xëyee rek mel ni ñu naan waaw moom mu xëy tey rek am xaalis fekk jaar nga fu metti metti metti man jaar naa ci restaurant di liggéeyal sama maam bi nga xam ne moo ma yar à l'époque mu ngi woon Liberté 5. terminus Liberté cinq seen daay bi dañu bëgg a rey fa lañ doon nekk ba 2 heures du matin 3 ñu soog a wàcc. di jaay cere ginaar yàpp cere baase. Mhm. du matin bi aussi ñu ngi doon jaay rago.

amul ku taxaw ne Ndeye Marie ñaan na ma lii wala mos na ma wax sam soxlaam non non non munuma ko voilà bi ma demee ba xam ne nag situation yi métti sama benn xarit ne ma ñëwal HLM xadi baay ñu ñëw HLM di ambulant di jaay ay omo ay kotoor boobu maa ngi ëmb sama taaw <laughs> ambulant naa foofu ba sonn après que ma am doom toogaat ba mu yàgg sama beneen xarit amis yi ne ma ñëwal nga jaayaat omo ma nekk fa encore toog daw affaire yi métti après nag laa mujje nag sam benn xarit bu ñuy wax Fane Ndiaye maa ngi koy nuyu mu ngi Turki léegi. ma ne ko léegi dama bëgg comme yow am nga taabul ma ñëw ñu associé ñuy defar ay muso mu ne ma yow am nga fit de ma ko mais pourquoi. affaire yi moom man neex naa xel xam naa moo xoole si catalogue yi. dinaa ko man loolu moo ma dugal nag si métier mu sóor alors que mu ne ma ñëwal ma ñëw amuñ départ ma jëlaat samay jaaro oo jaay xam nga man dama yàgg fit. voilà dem jënd ay bagages ñëw teg. client yi ñëw ma am fit defar macha allah réussir ko nag. maanaam euh, musóor nga xam ne bi dugg ci. Mhm. te da nga tok rek mu manam mu dikké la nonu mhm. mu benn inspiration bo xam ne dafa ñew ci yow mhm. kon fekk na yow manam mbirum artiste nek ci yow waaw c'est ça quoi man dama bëgg affaire art parce que bi xalé dama doon tok di def ay surtout seetu yi nga xam dañ koy ñew surtout ki sagar nga da ngay dem ci atelier yi pour dal di défar créer affaire yoy du genre man yoy dama mhm. affaire yoy du genre dama yàgg bëgg nak affaire art maanaam li nga xam ne moom mooy li ñuy wax formation pour xeetu defar musóor yooyu jàngoo ko. non non man moom wax dëgg yàlla jaaruma ci benn formation. non non amul ku ma defar formation musóor. incha allah mhm. te nag lu ma si bëgg a def macha allah dama ko ciy def. Mhm. Mhm. waaw xam naa ni toujours avec la télévision Touba TV leen wax ni kay ñu ngi fii ci naa leen fekk si fii soxna Ndeye Ndiaye Balla Gaye. Ndeye Marie Balla Gaye Ndeye Marie ndax euh, tur boobu la ko ñëpp di xamee. Balla Gaye bi lu ko indi. bala gay bi na sam ben xarit moom moo ko dàkkentele xadi baay ki manala naa sama xarit la mo do nek bu bala gay Gaye ko ba ma nek fo werante werante bala day dan ciowli bari legi bi mi bëreeg nak may Tyson ñom comme wa keur bay Niass la ñom ñu faral Tyson man ma faral bala gay ñu na ma deug nga xet lu neñ wax mako bu bala gay daano histoire bi fofu legi bi bala daanee nak xam nañ ne moo ñëwee dinaa wax dara mais man comme man mënuma gis nit nekk si lu ko naqari ma koy ñaawal du ma def loolu. parce que ma xool sam bopp. léegi bu ma ñëwee nag toog kalmum mu xool xool xool xamul nu may cuqe bu toog bu si yàgg Ndeye Marie Balla Gaye sonaloon nga nit ñi <laughs> alors que loolu moo indi turu Ndeye Marie Balla Gaye avec plaisir nag mu neex ma nag tamit bi ma waxee loolu tam. parce que ngay supporté nit ba nit xool la ba mu neex la mu ne la Ndeye mari Balla ma kontaan ci lool nag taaliba sañ bas Baara boobu daa suñ ma ne noo tudd ma ne Ndeye Marie Balla Gaye sama carte visite yi Ndeye Marie Balla tout sama <laughs> sama compte TikTok Instagram lépp Ndeye Marie Balla Gaye moo fa nekk après ñi may àndal ñëpp nag Ndeye Marie Balla Gaye mari Marie Balla Gaye alors que bi macha allah. tam <laughs> macha allah. waaw toujours avec la leen euh, daan doole dafa jóg rek ngir wane jàmbaar yi nga xamante ne bii dañoo am jaar-jaar parce que jaar-jaar am solo la. mo waral tay jii ñu joggé Touba TV and ak wa Touba TV ñew ci émission bi di daan doole fa seen waxtaan ak eh, soxna Ndey Ndiaye eh, Balla kay ñu gis ni nag macha allah jaar-jaar eh, bi riche na lool. <laughs> mais nak soxna Ndey Ndiaye ak sa waajur bu jigéen. waaw sama waajur bu jigéen moom mu ngi Kaolack. mu waaw hmm. yag na fa depuis ñu retraité yëpp ñom mu ngi fofu hmm. moom sama mam mu ngi fofu sangre bi mak yaay dañ fay nekkon bi xawma xam nga may ñu tuuti ci loolu ngay loolu ngay wax noonu rek sama yaay moom nekkoon nañu pikin wa pikin lañu nekkoon muy liggéey ci ben usine ben usine des fois sax bu liggéeyu ma fa doon remplacer jappalé ko yoyu mais fofu tam dundu nañ fa dundu bu tar xam nga jigen bëgg fashion affaire yi métti ay tok pour nga am lo lek suba ba ngon jot ko man ta da ngay dem ak sa ngor bëgg nit ñi xam ko mm-hmm. <laughs> waree fekk yaa ngi toog suba ba ngoon lekkoo naanoo ah, mooy mhm. loolu mhm. voilà moo tax dama dem ba nga xamante ne man lu métteeg lu neex yëpp dara dérangé wu ma ci en fait mhm. ndeysaan <laughs> sama yaay moom sama xarit la parce dañu xaw sax rusante dañu xaw a rusante sax cër ba xale yi dañ naan ko yow nday mari nga gën a bëgg mhm. mu ne leen fi ma jaara moom la mosuma sonal sama àdduna ndeysaan mosuma sonal mosuma lii laa bëgg mosuma wax lii mosuma sonal ci dara mhm. lu ma ko teg mu tegoo ko kon mhm. kooku faaw ma féeteeg moom waaw te man dama ko naan yow sa doomi ndaw yi nga gën a bëgg ñu góor ñi léegi <laughs> xale itam dañ naa man la gën a bëgg voilà mu nekk kilifa gu baax kilifa gu jaboot kilifa gu bëgg ay doomam doomam moo ko mën a tax a xeex léegi bu ma génnoon léegi xeex du laajte ko. Mhm. ku tooñ day ñëw sotal ma force. macha allah wallaahi. Mhm. sama maam bi ma yar tam noonu la mel. da mhm. ngay fàttaliku benn yoon laa mos a xeex xaar yàlla. dafa ñëw jóge jumaa rek simmeeku di xeex mu ne lan la mu ne day ma ne mosut xeex bu xeexee dañ ko tooñ. dañ ko tooñ ndeysaan. tubarkalla waaw waaw man maa sant yàlla. soxna soxna Ndeye Marie sa borom kër. waaw sama borom kër nag dañu tàqali dañu tàqali ko. macha allah mm-hmm. waaw xam naa ni comme ni ngeen ko déggee rek bu jógee fii fu ñu daal dem. waaw xam naa ma préparé wu dañu dem marché HLM sama mm-hmm. place. Mm-hmm. <laughs> waaw ñu xëy comme heure xëy leen mu jot préparé wu. après ñu dem HLM incha allah. kon tous les jours euh, maanaam euh, itinéraire mooy euh, Tivaouane man moom guddi guddi tiwaan pël li ndongo la wax naan guddi guddi pikin ya. guddi guddi tiwaan pël ndeysaan <laughs> bu ne nag fi dugg macha allah parce que tam fii dëkkandoo yu baax nañ bëgg nañ ma mhm. alors que stage sax lañ ma def si koñ bi damay sax rus ma génnee ndeysaan waaw ñu nekk ñu baax macha allah voilà boo moom mais ñu taxaw ñu yonte bi mhm. macha allah mhm. ñu dëkk dëkk bu rafet nag ñoom ñëpp ma xam sama oto sax bu crevé ñoom ñuy ñëw démonté fu ñuy defar affaire yooyu di genre ku mel as voilà muy noonu ñu nekk dëkkandoo yu baax a baax a baax nga may ma nag comme sama xel dem na ci te mhm. xel day fatt dama ñëwoon Touba bi mhm. tudd fa Alboury sama doom bu nekk Mbour mer Ahmed sekk Gawlo borom bongo yu neex yi mhm. léegi nag mu ne ma yemale woo say doom a ndeysaan soxna Faat Bintu Samb dina ma jëlaat <laughs> Touba bi incha allah léegi nag émission bi yëpp jaar jaar yëpp Amel gaaw Gawlo moo ko moom borom mbuur macha allah borom bongo yu neex yi sama doom la ndax man damaa njaboot ndeysaan waaw tubaarkàlla <laughs> voilà euh, comme ni ko soxna Ndeye Ndiaye euh, waxee rek ñu déggee ko noonu ñu déggee ko noonu nga gis ni sommairement dugg na ci jaar-jaar bi mais xam naa ni comme heure liggéey bi nag dafa jot dañu daal teg foofu suñu baaraam daat koy bàyyi mu préparé wu ñu daal di ànd daal dem foofu nga xam ne bii foofu loo xam ne fa la bureau nekk muy HLM bu ko defee incha allah dinañ jël euh, liggéey bi nga xamante ni moom la fay def musóor yi rafet yi mu fi def yi muy créé loxo ci loxo boppam te maanaam jaar ci formation waaye gëm-gëm rek ak bëgg li muy def moo ko yóbbu ci niveau boobu kon nag yéen ñi nga xam ne yéen ñuy teewlu bu leen bougé toog leen taxaar ñu daal di ànd ak soxna Ndeye Marie Balla Gaye foofu ci HLM incha allah. seen émission bii di daan doole ñu ànd ak soxna Ndeye Ndiaye Balla Gaye jóge foofu nga xamante ne bii moom mooy Tivaouane Peulh euh, nga gis ni Tivaouane Peulh ak HLM euh, macha allah mën nañ wax ni voyage la mais gis nu macha allah ni nga ko man non man guerrière laa gis tey guerrière ni nga ni nga ni nga ni nga njaabee oto bi macha allah ah jël yëf en charge dugg ci autoroute bi euh, qu'est-ce que ça soxna soxna Ndeye Marie xam nga rek bëgg a liggéey rek. Mhm. dëkkuwaay bu sori moom du ñu tere liggéey incha allah. ndeysaan. parce que comme yàlla may nañu ay tali yu baax moom. Mhm. ah te bëgg nañ liggéey bëgguñ tàllal kenn buñ seen suñ loxo. Mhm. moo tax toujours gis nga mais yaa teg sa bët gis nga li ñuy daj chaque jour. tubarkalla <laughs> lii gëm naa ni man moom bu ma dugaloon ci circuit bi moom xam naa ni nee ma damay décroché waaye léeg-léeg damay daw léeg damay daal di daw. mais la mais mais mais mais soxna Ndeye Ndiaye macha allah ñu ñu jamono fan lañ nekk nii. ay Tivaouane Peulh. sa yoon bu sori na affaire yooyu mais ngeen jàpp te bàyyi yéen itam kenn du yéen. Mhm. waa Touba TV macha allah. waaw voilà léegi nag yegg si nañ HLM. Mhm. ñu ngi nii pare dem place ba wan leen li ñuy liggéey rek. tubarkal <laughs> mais mais soxna Ndeye Ndiaye mu mel ni ki sa sa histoire ak HLM lu yàgg la du tey. si. Mhm. HLM moom depuis 2007 ba léegi maa ngi macha allah waaw ah, mhm. maa ngi woon nag si ci di ambulant 2007 yooyu. ndeysaan 2006 yooyu maa ngi woon ambulant 2007. Mhm. ma nekk si table. Mhm. ma doog ñëw nag sama boutique bi nag. macha allah daal leen bëgg a yóbbu nii. tubarkalla. waaw kon euh, maanaam euh, li naan euh, borom ki nga xam ne day jaay ambulant bu ne. bitigu mbagg borom bitigu mbagg bu ne. maanaam magasin nga cey gis kon kon kon dafa mel ni jaar-jaar boobu nga def mais mais mais tey euh, soxna soxna Ndeye jaay boo boo gisee fi nga jaar nga gis ni sa table nga yoroon di ci taba taba di góorgóorlu di ñafee di fighting di daan sa doolee ba ana benn instant suñu borom dimbal la nga am foo xamante ne fii yaa ngi fa toog di suturu di fa liggéey lan la lay def tey le fait que nga dugg si nii mu leran tey fii nga jëm danga koo liggéey ñafe ba yegg si fii waa sant yàlla nag parce que tam li nga mhm. wax léegi rek marché ambulant boo gis boo mhm. xaree xol ba Euh, magasin nga fay fekk. Mhm. ndax dama njëkk si ma ci ambulant. Mhm. après dem si taabul yi. Mhm. dem ba fayit ba yor fa sama taabul bopp. nekk may waat. mais loolu yëpp man maa gis ne man dama war a yor place. xamante ne tam. comme man dama méttik yi ñëw di yëkkati table yi affaire yooyu du genre. ma man damay jël magasin. ndeysaan centre bi ma nekk defe naa. benn place ma fi jiitu. macha borom centre bi. kenn mhm. newu foon nek na presque 2 ans 3 ans yo xamantene nit do fi ñewat mais soxna man fi mhm. nekkoon man kenn. macha place premier place bi jot. Mhm. après ñu nek fi ba gaay yi fekk ci ñu mais xam nga xam nga dafa am lu lu am ba de soxna soxna ndey ñay Moy, moy xaar parce que ibi boutique rek manam mu commencé di am évolution yombul. Ah, nan nga gérer attente bobu bar na ñoo xamante bi dugg nañu ci wàllum commerce di liggéey. mais amuñu savoir savoir toog di xaar attente boobu la ñu amul loolu yow nan nga ko gérer. nit ñi sax dañ ma fi doon fekk naa man day mari génnal fi nga nekk. Mhm. fi nga nekk réew kenn newu fi lii wóor ah doo génn ci biti ñëwal ci table yi. Mhm. nga bëgg force toog yi. ma ne garaawul yàlla dina ñëw. incha allah rabbi dama dina ñëw incha allah. incha allah macha allah voilà bi ma fiy ñëw. Mhm. bi ma jëlee place je pense que. di ma joxe avance. Mhm. yoruma sax lu ma jënde bagage yàlla sedd na. <laughs> est-ce que macha allah yoruma sax lu ma jëndee bagage baax bi ma doon toog si mbedd bi staaw bi. Mhm. moom laa ñëw indi sama place toog si nii. ndeysaan jël sama kii bu gan ñëwee. Mhm. bu client ñëwee ma jël euh, benn baax bi jox ko. man toog si benn siwo bu ma doon def ay bagage. ndeysaan <laughs> di def say musóor. voilà mais mais en tant que entrepreneur. macha allah ndax euh, da nga créer sa emploi. am fa ñoo fa nekkal n'est-ce pas da nga am nekkal mais kan kan kan tey boo doon wax ni tey diw mi moo ma jàppale si sama liggéey ba ma yegg si fii ci ci ci fan nga jaar parce que euh, encore une fois rek jeunes yi nga xamante ne bi dañuy góorgóorlu di fighting di daan seen doole ñu am benn vue ci mankat bu ma jaaree fii bu ma defee nii soxna si jaar na fii dinaa dinaa mën a réussir léegi léegi léegi yow bon ci jaar-jaar bi maanaam ci ki la jàppale ba macha nga bi sa place yor sa siwo yor sa banc teg am na koo xamante ni moo nekk ci ginnaaw ba nga xam ne bii yow dalaa dëgëral ba nga mën a créer sa entreprise. waa loolu dëgg la waaye nag man moom day bari moom. Hmm. ndimbalu suñu borom rek sutura ak banque. waaw. Hmm. jàppale suñu borom du baax xaalisu banque du xaalisu kenn nag dëgg yàlla. ndeysaan ak sama dërëm sama ñaar dërëm. jëm hmm. ci jàppalante rek def dugg ba yàlla taxawal sama. Mhm. voilà mhm. Mhm. ba yàlla taxawal ma day ma am sama place su bopp mais nag amul amul maanaam support daal non non eh? <laughs> waaw sama gars ñi comme gis ngeen rek macha allah ñu ngi ànd ak soxna Ndeye euh, Ndiaye euh, Balla Gaye Ndeye Marie Balla Gaye fii nga xamante ne moom mooy HLM euh, donc dañ koy bàyyi mu daal dugg ci biir saafonteek ay mbokki commerçant am dugg ci biir place am bu ko defee ñu daal fay fekk indi leen musóori nag incha si jaamu waax salaamaaleykum Cissé ci loo de yaa ngi cool asalaamaaleykum rakk jaamu namu naa la waa ci koko laay koko laay laay <laughs> salaamaaleykum maa fi chéri ci loo de yéen si na ngeen ani gàllaay daa génn am ma maa tegal ma noo ma nuyoo doog a ñëw tegal ma noo ma bala maa toog gàllaay naka mu El Hadj si jaamu salaamaaleykum El Hadj ça va def bonjour ci ne as ça va bien bien merci salaamaaleykum Baye Karim maa ngi nii rek cool salaamaaleykum Mbaye Babacar na ngeen def salaama yaay sëñ mu sell yi téléspectateur u Touba TV yéen ñi nga xamante ne bi yéen taamu seen télévision Touba TV rawatina émission bi di daan doole nee naa leen duñ leen bàyyil dara ñu ngi ànd ak ki nga xam ne moom mooy soxna Ndeye bu Marie Balla Gaye ñu ngi fii ci HLM nag ci bërëb bi nga xamante ne bi foofu lay daanee dooleem fa lay créer ay musóoram xam naa ne dañ koy bàyyi mu daal di dugg waajal boppam daal ñu defal nag benn prestation bu gaaw boo xamante ni bi dinañu créer benn musóor incha allah bu ko defee ñu daal leen koy wan daal leen wax ni yëf yi macha allah amul góor amul jigéen il suffit de vouloir rek nga gëm sa liggéey gëm sa bopp yàlla dala lay daal di jàppale kon ñu bàyyi leen nag Ndeye Marie Balla Gaye mu daal di dugg ci biir waajal incha allah bu baax a baax ñu daal di ci ànd ak moom toujours rek ñu ngi fii nga xamante ni bi ñoo mooy HLM ci euh, Ndeye Ndiaye Balla gay nga xam ne bi nee naa leen defar musóor macha allah mooy mooy mooy yëfam bu ngeen gisee nii commencé na nii di def prestation ci musóor bi nga xamante ni moom lay defar euh, ma bëggoon a xam soxna Ndeye Ndiaye musóor dafa am toujours dafa am musóor bu ne noo koy tuddee pour mën koo créer wala lan waaw am na bu nekk turam bii nu mu tudd bii tagal la ah, ngay def tagal nii damay def tagal en général ñen ñoo ko moom sagal yi grand dame la ñoo ko gën a bëgg. waaw na aussi yoo xam ne day bu petit dame tuuti lay doon. tagal bu rëy. mais comme bii may defar nii a bëgg. ci musóor am na yoo xamante ne day ànd ak olof am yoo xam ne day ànd ak yére tubaab. waaw comme chapeau day ànd ak mhm. aussi day ànd mhm. mu mel ni xam nga ci suñu tradition. bu njëkk ba da nga daan gis euh, suñu yaay yi suñu maam yi dañoo fonkoon li nga xamante ne moom mooy musóor parce que musóor da daan génnee colu même buñu daan dem marché sax dañ daan sol bu ñu solee seen i tay baas ba pare dañuy def seeni i musóor seen i tagal yu rafet yu ndaw en étant de ay ay jéeg yu ndaw mais boo leen daan gis da gis dañuy def dañuy def tagal kon histoire musóor du tey lu yàgg la waaw mhm. musóor xam nga si jigéen mhm. taaru jigéen musoo da koy taaral mhm. comme par exemple tey nii ma def nii tay sol sama yére la bu ma defoon bopp kese xam nga mooy loolu mhm. moo tax musóor ko bokk si taaral jigéen yére yére yére olof macha allah mhm. voilà am na aussi ñi nga xamante ne nag ñoom ay ay ibaadu lañ. wala dañuy sellal bëgguñ teg greffage. Mhm. ñoom tam dañuy am yoo xamante ne ni tey dañuy def ay chapeau yoo xamante ne dañu koy mën a booleeg te ni buñ sol. Mhm. yére olof yére tubaab. Mhm. tout robe de mariage lu la neex nga koy booleeg. yéen a dëgg laa boo koy dem am na loolu yëpp. bu nekk bu fay dem waaw musoor complexe wut quoi du loo xamante ne. tey tey boo musooroo ni tey buñ la ne woon. Euh, bay Karima nga nii da ngay dem nuyu ko. mais tay bu ñu la ne boo tegoon greffage wala nga def foofu kese. Mhm. bu ñu la ne sëñ Abdou Karima nga nii foog ngeen day ma ne ah mënuma teg sama bopp gaaw dëgg la sor complexe musóor mhm. dafa bok ci jigen mhm. voilà mu melni ki rek euh, li nga xamni mom moom la naan la mu nek une identité africaine ndax euh, le musóor un langage le foulard dans le monde et dans de nombreuses cultures c'est ancré dans l'histoire des peuples kon mi ngi wone ni peuple bu ne rek manam amna sen seen musóor wala seen xeeti fulaar yoo xamante ni moom la ñuy teg seen bopp ma bëggoon a xam tey soxna Ndeye Ndiaye fulaar bi nga xamante ne muy tagal yaa ngi koy def ñaata temps la lay jëlal non mun na yàgg mun na bañ a mhm. parce que euh, boo si concentré woo. mun na bañ a je pense que balaa 20 minutes. Mhm. dina pare bu soobee yàlla. incha allah waaw incha allah kon ci fi ne ci journée bi peux faire ci defal journée mun nga si defal ay 10 ay 15. Mhm. mais am na yoo xamante ne moom munoo si passé ay 3 ay 2. Inch'Allah, voilà. parce que c'est plus compliqué. voilà mu mel ni ki euh, maanaam tendance musóor yi aussi dafa am yoo xamante ne bi day am ay ay ay ay nouveauté génn. si. Mhm. chaque année dafa am yu bees mhm. tagal moom nga xam ne du mhm. que tagal. tagal koy def tagal na ne tagal boobu jamonoy maam la moo tax waaw comme ni nga ko waxee nee na longtemps la musóor longtemps longtemps la musóor dafa nekk benn accessoire boo xamante ni bii dañ ko xawoon a délaissé par la femme africaine.

kon nous du question de dang ko sol parce que dang sol mais dafa am lu muy tay sama classe gi amna ci tagal ne solé manam bo bo bo ay nit xam ci départ tagal c'est une femme au foyer wala qui c'est une femme bo c'est une grande dame qui c'est une femme qui exerce des métiers loolu dañ koy parce que même sénégalais sax dañ koy xool da musóor dala ko dalay da ngay romb. nga takk mhm. sa musóor ñu ne kii de sénégalais la. ci musóor gi voilà macha allah. parce que musóor ku ne xam na ne aaday sénégalais la. Mhm. waaw suñu maam dañu respecté woon musóor. dañu mhm. fonkoon musóor. dañu dem nag ba fu mu toll nii bu sóor kuy roy rek ñun nga siy roy ñun Sénégal mhm. dañu dem ba étranger gën ñu ko bëgg rek mais ñun ñoo ko créé parce que tey ñoom buñ koy jënd fii lañ koy jëndee ko seen dëkk ko jaayaa kon amna na xam dañu ko fi jënd ko yóbbu ñoo ëpp luñ koy jënd mhm. étranger yi mhm. guinée yi euh, ñag yi uh-huh, ivoirien yi ñoo koy ëpp luñ koy jënd def commande après parisien yi tamit allah voilà waaw mu mel ni kii le sénégalais bien plus simple accessoire de mode nee na fi ñu ko yaakaaree muy benn affaire boo xamante ne bi lu ndaw la lu simple la. Euh, euh, historiquement euh, peuple yi nga xamante ne bii bokk na ci Yoruba d'Afrique de l'Ouest Nigéria Bénin Togo Ghana. comme ni nga ko waxee ñoom da ngay da ngay ni ñoom dañ ko privilégié. li nga xam ne moom mooy musóor. waaw ñoom dañ ko bëgg. Mhm. dañ ko bëgg dañ koy ñëw di ko jënd di ko jaayaat jamono yi. 2007 2008. Mhm. boobu sénégalais sax daan duñ ko. ñoom mhm. ñoo gënoon bëgg sénégalais yi ñuy defar nii. Mhm. parce que dañu teel a xam valeur bi ñoom. macha allah mu neex leen trop nag ñu bëgg ko ñun dañuy dem seen dëkk yi di ko mais tey li nga xam ne bi moom mooy musóor maanaam bu ñu dee xool tendance bi est-ce que bari na ñu ko def fii au niveau du Sénégal. waaw léegi nag moom bari na. ku njëkk ba nag bariwutoon. ku njëkk bi moom defe naa. bu Waline Fall jàllee maire Cekk jàll mhm. après ñoom ami si après man waaw mhm. boobu ñun ñeent groupe yi daal defe naa ñoo ko fi doon def ñoo ko fi doon def ñoom xali mhm. bàyyi ñoom après nag la bari nag nii nii nii voilà mais bu njëkk moom bëriwutoon mais léegi nag formation yi bari na xale yi dañuy liggéey parce que toogaay bi la ñuy bañ dëgg la voilà dañuy ñëw ñu leen di former ñuy dem di liggéey def seen it ñoom tam macha allah. Mhm. voilà Guinée ñag ñëpp dañ fi de formation ah ak Gambien yi. ah mhm. mhm. waaw. mu mel ni kii musóor bi di héritage boo xamante ni dañ ko a valoriser. ndax petit bout de tissu nga xamante ni bi da koy jël rek créé ci dara daal di teg sa bopp dafa am lu muy def ci yow. maanaam euh, maanaam ku gis dala ci respecté. moom musóor. parce que tey par ay kab rek lay Euh, fit bi ngay am pour wax koog man su ma soloon tey sama yére olof nii teg sama musuwaay. doo ko am doo am fit boobu. <laughs> doo am fitu ma romb la rek nga ne ma eh soxna si lii wala eh lii. Mhm. non non mais fi mu boo solee nii sa yére olof teg sa musuwaay. mu mhm. romb dañ lay respecté dañ lay jox macha allah loolu musuwaay gi ma koy waral. moo ko waral. Mhm. waaw mu mel ni kii soxna euh, Ndeye. Ndeye Marie euh, waaw soxna Ndeye Marie ban message ngay adressé soxna yi nga xamante ne bii maanaam ñu ngi koy banaliser aussi defuñu ko seen priorité. ban message ngay nga leen adressé. à travers la télévision Touba TV. waaw di leen wax ne rek Mousso dafa bokk star jigéen. Mhm. te li nga xam ne sunu maam yi ñoo ko fi indi woon ñoo ko fi bàyyi. ko mhm. defe naa loolu royukaay bu baax la bu doon royukaay bu bon. Mhm. li ma la wax sànq dama la ne bu ñu newoon sa kilifaa ngi ci tey. ah ñu ne tey baykat yi mu ngi fii wala. sëñ Mbaye Sy Mansour mu ngi fi bala nga koo nuyu nga ut loo teg sa bopp loo nga mhm. da ngay daw rek fa mhm. la <laughs> voilà kon nga mhm. ne musóor na si liy taaral jigéen bokk na si liy jox jigéen cër li tax ñu jox jigéen da koy quoi allah macha allah waaw mu mel ki nag man bëggoon naa xam ci euh, style bi nga xamante ni bi def style parce que gis allah lan moo ci attiré soxna yi lan moo tax lan lan la ci soxna yi gis ba mu leen di attiré. waaw parce que dafa rafet. Mhm. musóor nag dafa rafet de bala nga koo xam nga sañsee mhm. ba takk sa musóor dafa rafet. Mhm. waa musóor boo ko takkee dinañ la laaj ku la defaral sa musóor bi ñun boo xoolee tey place bi doo fekk ni pourtant commande yi dañuy ñëw parce que numéro yi la ñuy paasal. li ko waral mooy musóor rafet yi ku takk. ñu ne la soxna Fatou Binetou sa musoo bi rafet nga ne xaaral ma jox la. ma jox ko defar voilà. macha allah keneen noonu keneen noonu. ñun mhm. dañuy liggéey ak nit ay presque 10 ans yoo xam ne mosuñ gisante. ci ci ci ci ay numéro yu demalante rek la macha allah te dañuy boole ñoom. nit mhm. tey woote sa benn client moo ma jox sa numéro kii moo laaj sama référence bi. mun ngeen liggéey di gens yoo xam ne du ngeen gis ne du ngeen xam kii numéro téléphone. macha léegi sa statut yeeg yooyu image yi mhm. sa morom. mais bu njëkk daaw ko am. non non non jamonoy Viber am. loo jël ñaar téeméer mi franc. daawoo gis sa kii. Mhm. daawoo nettoyé ba mu set. daawoo gis euh, ngay waxal. xam nga léegi sax di nga gis statut. ah de fat Bintou sambo mi moo commandé commande démb. bis estatem ne ah kii la mel. ah oui bo xolé 3 fois 4 fois bu ngeen dajé ding ko mën xamé mais bu njëkk loolu amutoon. Mhm. Mhm. mais est-ce que nak dinañ am ben jour plaisir bo xamantani bi di nga créer fi festival di di Mousso fii au Sénégal. wa xaar leen ko nag incha allah du yàgg dara. bu mhm. soobee yàlla loolu ñu ngi ciy xalaat ñu ngi koy togg ñu ngi ciy kii daal incha allah yàlla dimbale daal ñu am moyen tuuti tuuti. Mhm. incha allah xam nga mhm. jamono ji moom liggéey bi dafa xaw a métti. dëgg la loolu ak. Mhm. système bu bees bi affaire yooyu di te ñun nag jigéen ñi def musoo daanaka amuñ jàppale. ñun ñëpp nag sama bopp. ñëpp lay waxaale parce que amuñ jàppale il est temps ñu jàppale ñu parce que soxla nañ ay matériel soxla nañ ay kii ah, dédouanement yi métti na ah. colis bu ñëwee da ngay meur mooy mhm. loolu mhm. eh, jàmbaar lañ am nañ jom des fois affaire yi day xaw a métti foog ñu jàpp lañu si yooyu mhm. voilà ça fait que ñu mana a yeggalee projet yëpp incha rabbi mais mu melni ki nak ak jamono ji fi toll ni ngeen am ay création yo xamanteni di ngeen mëna def seen musor te du ngeen ko utiliser du ngeen jël ay wëñëk wa très bien yoy non ay ay machine mo koy def wa fo nga am moyen moyen yi am matériel lool moyen mo koy joxé voilà mooy loolu mais xaj na comme président bu bees mu ñuy seetaan. Hmm. peut-être dina jàppale jigéen ñi. bagage yi dina <laughs> dina yem. <laughs> waaw soxna soxna Ndeye Marie lan mooy say perspective d'avenir maanaam say sa avenir lan ngay lan lan nga ciy xaar ci maanaam musóor yi nga xamante ne bii yaa ngi na li may xaar. waaw ah, wax ñu de boo dañoo bëgg a <laughs> dinaa si yóbbu yaay màkk te si teral sama maam bi nga xam ne moo ma yar mhm. eh, yàlla borom sutura mhm. ñu daal mhm. ah, ñu ngi rafet njort ne dina ñëw na incha allah incha allah léegi bëggoon nañu nag benn message boo xamante bi pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci tendance bi sa moroom jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di defar ay musóor ak yooyu lan mooy message bi jëm ci ñoom jóge ci yow waa di leen wax ñu jàpp tawu bàyyi rek. Mhm. parce que euh, ñun ñi si jiitu. Mhm. liñ ciy nekk métti woon na torop. voilà ñu dem ba yor suñu place su bopp toujours dama leen ko dama leen naan jàpp leen rek dina baax. Mhm. boo xoolee tey ñi mujjee ñëw ñu bëri ñu ngi am ak place ñu bëri ñu ngi ubbi ay place ñu nekk jigéen di jàmbaar musóor kat ay jàmbaar lañ ay nit ñu baax lañ. ndeysaan voilà nit ñu baax lañ. nit ñu am jom nit ñu nangoo liggéey. parce que imaginel di. da ñaw dafa metti sa loxo yi gis nga yëpp ay yàqu yëpp ay yàqu mhm. ñu jàpp te bàyyi buy naaj ñu ngi ñëw buy taw mhm. ñu ngi leen di gis dañuy xuus si ndox mi macha allah nekk ay nit yu valeur nit ñu am mhm. jom bañ ku leen yëpp soxla wuñ daray góor waaw man musoorkat yëpp nag samay xarit lañ macha allah musoorkat yëpp d'ailleurs gis nga sama benn xarit xadi bàyyi saa yi mu ngi burki daal di ko lijjanti Masya allah mu nek borom jom kon ñom ñepp a fi kii ma dendal place ni mère Cekk Faye mom mhm. tam si ñeek a musoor moom moo njëkk a ci marché macha allah mère Cekk mu nek mhm. nit ku baax nit ku yaatu ndaysan yaatal ñepp ah mhm. wax mu nek ci sama doom la ndeysaan nekk nit ku baax vraiment di len wax dal nañu am courage rek te xamne lo japp ren ba dewe mu jëriñ waaw gëm-gëm rek moo am solo gëm-gëm gëm am solo mais métier bi nak lu am risque la parce que pousso yi ngeen utiliser ak seen loxo ak ciseaux yi waaw mais nan ngeen di def pour protéger aussi wala yéen da ngeen def noonu bu la jamee rek nga muñ. muy noonu la de loolu dana ñuy kii dama mujjee dem sax pikiru jël kiiwu tétanos bi nga xam ne à vie dootoo pikirooti. Hmm. tétanos macha allah. Euh, façon bu ne lay nu lay jamee. Mm-hmm. mun nga jóg sa fàtte ko sa sees ñëw toog. ah ilaha illallah wallaahi. masa masa nu ne la ci nu ne la lay jamee boobu. ñu mm-hmm. sa tànk. ndeysaan mm-hmm. macha allah. waaw mu mel ni kii soxna Ndeye ñaata at nga def ci métier bi. waaw man si bëgg yàgg nag 2007 2007 ba léegi daal. maa ngi ciy musóor mën nañu ne 18 normalement sori parce que bi ma ciy daal boobu maa ngi boot sama taaw mu ngi am 3 mois. ndeysaan mhm. Mhm. lan moo la gën a métti ci liggéey bi loo xam ne bi tey boo ko xalaatee rek maanaam dina la def émotion boo xamante ne xam nga ne lii lu metti la ak lan moo la ci gën a neex nga xam ne boo ko boo ko xalaatee rek. Mhm. soxol day neex da nga gën a amaat courage topp li nga xamante ne moom mooy defaru musóor yi. dëgg la bi nag li ma ci gën a moom mooy sama xarit yi nga xam ne ñoo fowandoo ñoo àndandoo. Mhm. depuis temps xale dara boolewuñu ñu ñëw métier di ñu boole. loolu daal xam naa ne métti na ma si trop trop trop. métti mhm. mhm, na ma si trop. xar sa xarit yi nga xam ni. ñoo fowandoo ñoo nekkoon depuis temps di ñu dem ba yàlla boole ñu ñu. liggéey. Mhm. métier bi dem ba xaw ñu jaxase. Mhm. voilà loolu daal xaw na woon métti trop. kon daal liggéeyu métier bi nga xamante ni nekk na ci nii am na ñoo xamante ne bi yàq na seen diggante. waaw am na ñoo xam ne ni lu mhm. ah, mu yendoo fanaan si yow lu fanaan si yow yenn soo xamu nuñ koy waxee. waaw ngeen dem ba nga xam ne écart am na seen diggante ndax métier. du lu ma neex du lu ma mhm. jar na loolu. non non non man jaralu ma ko. Mhm. man personnellement képp kuy musóor képp kuy musoorkat waxuma la sama xarit rek mais kuy musoor rek. Mhm. man lu ma la yéene rek yàlla na ma si yàlla jiital. parce que man yéenewuma kenn lu bon. su ma sañoon ñëpp ay réussir. su ma jullee ba pare su may ñaan. ñaanal ñëpp ndeysaan dama ko tàmm ba mënatuma wax yàlla maa ngi lay ñaan dama naan yàlla may ñu nangam dama bëgg ñu may ñu lii may ñu lii may ñu lii parce que dama tàmm ñaanal ñëpp mm-hmm. wallaahi mm-hmm. daal xam naa ni daal metti na ma torop torop torop mm-hmm. voilà lu ma neex nag moom mm, am naa ko si tuuti rek parce que sant yàlla ku dem ba am lo xamantene dañ ne li ci sa métier nga ko amé ndeysaan fi ngay yeewoo. Mhm. wala auto bi ngay dawal neex na mais dess na. Mhm. wa bala ma am luma ma neex deug deug dëgg. Mhm. voilà dama tabaxal sama yaay keur gu mu nekk euh, yobbu ko mak alo di na. sama mam non sama mam non moy lool mom ta bu nu ma wax ci mom parce que. <laughs> moy lool dal moma ma yar te affaire mooy loolu. moom moom mënuma wax sama lu bari. non dang ci wax il faut nga wax sa mam <laughs> parce que euh, nit ki bo jaar ak mu fenn fi yu melni manam wax ci mom def mom ay témoignage yu ci am solo donc foog nga wax ci mom ci li nga xam ne tey ñaar sék ngeen ko ba tax ni mëno wax ci mom xam nga sama mam mom dafa nek kenn ko xam mo ñu yar mosul bëgg ñu xiif mosul bëgg ñu mar ñu ñoko tardé si àdduna ñu la ko jox mbokk ko sonal dem nek Dakar bu retraité té amul dëkk boppam bay retraité ñu koy yóbbu Kaolack te loolu mbokk rek te mënoon ñu gënoon baax liggéey foofu. ñoom lu ne mu def. bu xiif bu ñu solo bu baax moo ñu ko tàmmal boo gisee bu ñu xiifee du ñu wax bu ñu suuree du ñu wax man tàmmatuma sax lekk ba suur parce que damay xalaat. ñi nga xam ne amuñ lu ñu lekk. moo tax du ma lekk ba suuf. Mhm. bu ma xoolee soo sama xale xam nañ ne man du ma lekk ba mhm. parce que dama si jaar si kii mais sama maam moo ñu génne woon ci yooyu yëpp man bu ma lekkee ba suuf sama maam la su ma solee yu baax sama maam la alors que bi muy tukku aw ma jël ko en charge aw ma moyen nu dugal ko ci kër boobu maa ngi profité li ma mën du am kër balaa mën a di mhm. man heureusement fi ma njëkk am teene muy jëm ñaari ñu mama yi muy tuub fekk mënu ma affaire yooyu na ma trop trop trop trop parce que du Dakar te dinaa ko taxaw comme ni ñu taxawoo woon voilà ñuy dem di dem di dem ba ma xam ne kii dem màkk parce que mag ñëw na loolu mhm. na ma ay bëtam voilà ndeysaan ay dafa muru macha waaw mais nag noonu la àddina noonu la. mu mel ni ki soxna Ndeye Ndiaye sànq yaa ngi wax ba ci di wax ci li nga xamante ne bi nga am sa terrain jëm ñaajo nga xëy suba ñu ndax la moom loolu nan la demee ak situation yi nan la la dikkalee parce que dëkk bi am na yoon aussi. boo boo nekkee xale teel am jom teel a bëgg demal sa bopp ma gis ne sama maam daan def si location bugguma mu bëgg naa ko teel a wàccee coono boobu bëggatuma man tam am coono location parce que dama fekkee ñuy jaay parcelle maa euh, kii dañ ko nettali du moins bi ñuy jaay parcelle terrain cent mille francs sama maam fii dafa nekk àll du ma fi jël dafa yóbbu sama njaboot ma fàttale ko loolu ma xool parcelle tey nu mu mel. billaay ma ne man fu ñu ma ne fii àll la dinaa ko jël. dëgg la sama maam fa taxaw ne parcelle àll la. Mhm. léegi mënuñ fa am te ma rayante ma jam ñaajoo ma jënd fa sama terrain ma jëndee terrain après que ñuy dem di dem di dem ba waa ji. parce que boole nañ ma fay agresseur naroon nañ ma fa agressé. voilà dem naa fa ñu bëgg ma ma daw dugg si may gis yooyu yëpp après par la suite pour waa ji dama jéggi saa numéro sa effacé sama téléphone. ndeysaan mënatuma ko xam. Mhm. su ma fa demee xamatuma ko damay ñëw mel ni ku jaxasoo nii jaxasoo jaxasoo jaxasoo boobu yu mel xaw ma rey du ma xam fii sax laa war a wala fii damay mhm. mujjee ñibbi si waat. Mhm. mu mujjee dem ba nga xam ne turu jam ñaari sax bëggatuma ko dégg. ndeysaan ndax ndax bin la fa ndax. xaw ma lan la xaw ma. Sénégal la. waaw fii de Sénégal la moom. Hmm.

ak rasta yi. yu bàyyi est ce nga soxna Ndeye Ndiaye lii artiste la maanaam c'est de l'art. waaw l'art la sax. xala mhm. mhm. mm. mhm. koy def xala mm. en plus dafa nekk ci yow nga war ko génne. voilà. macha allah. Mm-hmm. waaw mu mel ni ki gaañ yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan télévision Touba TV ci émission bi di daan soxna Ndeye Marie Balla Gaye borom musóor yi ah, def lu am solo ngeen gis ni mu def musóor boo xamante ne bi créé na ko ci seen kanam ngeen gis moom la teg nii macha allah te ay loxoom la ko defee donc buñ dee wax ni daan doole moom macha allah war na war na jigéen lu mel ni moo tax ba tax na dañuy daal dem ci témoignage yi jël ñi nga xamante ñom ñoy ñom ñoom lay liggéeyandool fi déglu seen kaddu yi nga xamante mom lañ ko def ci mom da dess wat inshallah ñoo leen di nuyu bu baax sant yalla bu baax di jël ci yonent bi di wax jërëjëf Serigne Touba wa xalé yi de euh, surtout mom mi ngeen def ci mom témoignage sax euh, liggéey rek lañ xam ci mom wax dëgg yalla liggéey rek lañ xam ci mom ñi ngi bëgg a ak mom ci marché bi ma sha allah jambar la xalé bu nango liggéey la. man su ma koy témoigner tey jii dama naan femme brave la sa ci liggéey rek laa ko xam toujours mi ngi góorgóorlu mi ngi xool lu amélioré liggéeyam mi ngi am jom mi ngi xëy waxtu di wàcc waxtu macha allah amuñu leneen lu ñu wax ci moom lu dul nangoo liggéey li ñu bokk tam di ko liggéey macha allah mi ngi koy sellal ñu ngi ci góor góorgóorlu bu baax a baax a baax ah te xam naa ne mi ngi koy jox ak xam parce que nit ñaa ngi ñëw ci moom waaw ñi ma ko seqal di liggéey ak ñoom tam lu ñu soxla ci moom. bu ko amee ñoo koy yàggal am na yërmaande tam ci loolu laa na biir macha allah neex naa nekkal amul benn problème waaw loolu daal xam naa ko. Mhm. Mhm. Mhm. waaw. loolu day am ci liggéey yëpp parce que du nekkul ne xëñ na jikko yi moo leen di boole. mais des fois ci ñi ngeen di jëfalanteel bu amee ñu ñëw ci ñii tey suba ñu ñëw ci kee xëy na mal entendu boobu di am xëy na mooy indi affaire yi parce que bu fekkente ne yow da nga ñëw ma defaral la leen ma la defal neexu la wala li ma la jaayee cher na wala nangam nangam boo demee ci kii ëllëg na ko kii de li ma jaayee nangam nangam li ma defal neexu ma su ko defee day indi tendance suñ diggante mais man liggéey bi man naa ci jiitu xale yëpp ñoom ñëpp ci lañ ma fekk euh, macha allah aw ma benn xale problème. aw ma kenn problème ñëpp dama leen def comme doom ya ma bàyyi ci sama kër ñoom it ñu def ma comme yaay macha allah man daal benn xale amaguma ceeg moom problème wax dëgg yàlla ba pare tendance boobu ñuy wax sax man aw ma ko ceeg kenn parce que yaay lañ ma def ku ma ci soxla ci yow dara yaa ma koy jox ku ma romb di nga ma nuyu nuyu bu neex ku ci soxla sans place di nga ñëw waxtaan ak man man daal aw ak ñoom problème surtout moom mi ma nekkal daal xam naa ne maa ngi koy seereel ne nit ku baax la nit ku baax la nit ku nangoo liggéey la xale bu am jom la wa ah, lol maa ngi koy seereel ku bari yermane la tamit ci ñi may jëflanteel. nday mari mom suñu jigen la suñu jigen bu baax la danaka sax marché ñu boole ndax fi lañ xamanté waye comme li ñuy wax rek bërëb bu mëna a doon mom danaka bo fa dajee ak ay nit bu ngeen seqee jamm rek day dem ba ba mu yàgg day melni famille la motax fi ñu nekk ñun ñëpp bo xolé famille lañ waye nak du ci ñun ci mom la parce que nit mom bo amé jamm rek. da dem ba mujj képp koo seexal rek jàmm ngay seex ak moom waaw ci moom la du su ñun ci moom la du ñun parce que xam nga rek nit ñi moom daanaka comme jamono yi léegi moom euh, li may wax rek parce que nit ñi koo gis daanaka da ngay jàpp ne maam doo am óolute ci moom wala dara waaye nag comme moom moom bu ñëwee seex ak nit ñi jàmm moom ñun tam dañ koy delloo jàmm yooyu moo tax ñun tamit ñu jàppee ko comme sœur jàppee ko comme yaay jàppee ko comme lépp daal waaw. famille la daal. en tant que sœur nag. en tant que sœur <laughs> ma koy conseillé ah defe naa ne amuma lu ma koy maam parce que moom daal moom daal zéro faute daal. zéro faute. mais am nga li ma koy dolli dama koy gën a ñaax rek. comme moom jigéen la te macha allah mi ngi góorgóorlu ci liggéeyam man li ma koy conseillé ñëpp rek fukis ci liggéeyam rek. focus ci liggéeyam rek lu dul bu mu ko ñor wala lu liggéey ak njabootam bu mu ko ñor waaw moom te moom laay conseillé jigéen ñëpp sax ak ñëpp. en tant que góor ah waaw parce que loolu dafa yiw parce que musóor jigéen musóor lañu wax te boo musóoroo da ngay nëbb sax karaw ndax karaw jigéen tamit comme dañ dafa bokk ci yi ñu war a nëbb. kon boo jëlee boo jëlee musóor teg ko sa kaw mu nëbb sa cër kon kooku tamit lu baax la kooku dañ ko ci encouragé loolu moom vraiment moom suñu sañoon jigéen ñëpp dañuy dañuy dañuy musóoru waaw <laughs> lu baax moom. <laughs> non non waaw noo xam ne nga tagali am na yoo xam ne yu xale la buñ la ko defaralee tamit. parce que yu mag am na yu xale am na ndax man mii tamit defuma ko mais am naa ci benn kii parce que mag ñoom yàgg nañ parce que am na yoo xam ne bu ñoom bu ñoom tey jii boo ñëwoon bu ñu la xoolee rek dañuy xam bi la bi nga war a def comme moom wala moom ak ay moromam ak ñi koy def ñëpp buñ jàkk moom ñoom buñ lenee jàkk rek nañ xam tagal bi nga xam ne wala bi nga xam ne boo ko defee dina la jàpp parce que loolu mooy expérience loolu mooy liggéey loo nekk da ngay fexee xam ko mën koo manager waaw ku ñëw kay ku ñëw nga xam bi war ci moom. léegi yow est-ce <laughs> man mësumaa jënd moom day joxe ma du man man du ma jënd day jekk saa yi ne ma xam jëlal dem jox kii bi dem kii bi comme noonu. Uh-huh. comme ni ma la ko waxee rek. dama macha allah dafa am góor ñoo xam ne <laughs> jigéen moom lépp loo xam day nëbbu day nëbbu ay jërëm rek. Uh-huh. day yiw parce que dañ naan kumpa lépp loo xam ne kumpa rek. Uh-huh. dafa dafa dafa dafa neex daal moo gën lu ne fàng ca biti lu ne kii lépp loo xam ne kumpa rek dafa day doon day doon day neex mooy surprise rek surprise. waaw ngeen gis ni euh, tubarkalla ñu ngi woon ci témoignage yu am solo yi nga xam ne bi dégg ngeen ko ni ñu ko defee ci ki nga xam ne bi moom mooy soxna Ndeye mari Balla Gaye borom musóor yi macha allah nee naa leen ku bëgg lu jongoma rek da koy daal di seet si euh, bu ñu toppoon témoignage yi nag duñ fa jóg tey ndax ñu marché bi ñëpp a bëgg a wax waaye dañ leen cee tànnal ñaar rek ñu wax ci nekkin bi nga xam ne bi nekk na ak ñu wax lu am solo soxna soxna nday ndax nday mari ndax liñ ci gën a seetlu mooy wax ji benn la moom ko oyof la daf ñooy jàppee ni frère am wala yaay euh, maanaam ñëw indi jàmm ñu delloo ko jàmm ji loolu lam nga ci doon waaw mhm. moo ñu yaakaar li ma la waxoon sànq mhm. moom moo njëkk a musóor HLM boobu mu ngi ci table yi ci biti ñoo nekkoon foofu mhm. après ma ñëw fii mu ñëw fi ndeysaan laaj ma fii noo ko gisee mu ne ko baax na ñu mhm. jàpp dina baax ndeysaan mu ñëw jël fi ndeysaan ñu dend nekk fu baax mhm. ñëpp mhm. woyof marché bi yëpp yaay ñëpp yaay mu ñëpp nekk jigéen ju mën koo jigéen ju baax jigéen ju taxawu yaayam ba àdduna mu uuf dama ko naan sama référence la parce que mhm. booy xool ba xam nga meeru géwél la te meeru géwél dañu mën dañu bëgg lu baax mën a ñaw mën a defar merci beaucoup mhm. mën a nekk ci marché ndeysaan kon donc ñoom li ñu wax lépp rek si ñoom la nekk torkal la mu xamee si sa ni pare bi mu fiy doog a ñëw bi mhm. mu ne salaamaaleykum ba léegi maag moom la mu nekk baax c'est ça ku woyof moom tam mu nekk sama rakk ñuy ànd di ñibbi. Mhm. entraînement sama maa si dugal dañuy ànd entraîné. ndeysaan ba entraînement yi jeex ñu ànd. ma wàccee ko continuer dem sama kër mu nekk ku baax. macha allah xale bu yaru macha allah. ku mhm. bëgg nit. Mhm. ku ku ku ku laabir si liggéeyam. macha allah ku ku gëm yàlla si njaayam. nekk na daal nit ku baax man lu ma neex laay def xalaat sax lu ma neex laa fay jël damay dem sax. nga xam ne li amul bu di ko wëral sama bopp macha allah te que marché bi rek moo ñu boole mais dañu dem ba mel ni famille ñëpp ah bu ñu doon wax duñu jeex lu ma la sànq rek place bu la neex duggal ñoom ñëpp ñi samay frère lañ si ñoom jibi ah ñoom Cheikh Amar Mouhamed Cissé rakkam Pape Cissé man ñëpp laa sonal ndeysaan tey caméra bee tax ma sérieux nii mais man may dugg damay tooñ ku ne acteur ba ma la wutal caméra bi nag war tamit ko laay laay laa koy woowee dégg nga ko ma koy wax sànq. ndeysaan ndeysaan ñoom Gàllaay ñuy Fatou Sylla ñu As ah, Karim Sarr nga xam ne sama féete la moom sama rakk la. Mhm. voilà macha allah ñoom moo damay dem bàjjen jox ma lu ma neex sant bi lu ma neex laa fi def ñëpp samay xarit. maanaam da nga fay créer sa sa famille. merci beaucoup très bien. Mhm. des fois ne kii laa nopp kii mooy sama copain. léeg-léeg ma jógee ci Karim dem si Mbaaxe léeg ma jógee si Mbaaxe dem si. Euh, euh, Edu. Mhm. macha allah ñoom ñëpp jigéen góor ñoom ñëpp c'est la famille. macha allah boo fi ñëwee benn lañ te ñoom ñoom ñoo baax ñoo woyof parce que bien vrai que maa leen fi jiitu ñoo ma fekk si mais bi ñu ñëwee itam macha allah voilà mhm. yaatal naa leen waaye ñoom tam neex nañoo yaatal jërëjëf ñu bëggaabul lañ macha allah jërëjëf jërëjëf soxna Ndeye Marie mais nag li ma doon laaj rek mooy bagage seen bagage yi ngeen defaree musóori fan ngeen koy jëndee bagage yi waa am na yu ñuy jëndee si marché bu njëkk nag ñun bala ñu woon commencé voyage fii lañ doon jëndee mais bi ñu dem voyage nag mhm. dañuy indi bagage mhm. mais tam am na yoo tam fii lañ koy jëndee ci biir marché bi rek. bi nii commerçant yu mag yaa ngi fi. léegi defar da ngay defar ay formation maanaam tey ku bëgg mm-hmm. a def lii tey bu la contacté bu ñëw di ko jàngal. Gambie Mauritanie. bi mu mhm. kii mujjee jógee fii bu jógee fan. Guinée Guinée je am. fan mhm. yee pass ñu ngi ñaari élèves yoo xam ne Mauritanie lañ jógee. ñëw ba fii ngi def formation dañuy def di dem ñoom tam di ko liggéey seen dëkk yi mhm. di ko toj. déggal lii bu ma defal formation boo demee ma formé kañ nga may formé kañ lay ñëw. ay mode tabaski lépp quoi ah, Gambie. léegi da nga defal non yow moom. yow soo ñu la bàyyee télé bi rek Touba TV occupé nañ la rek amoo benn temps. ndeysaan tubarkalla waaw mu mel ni ki rek léegi nag dañ lay bàyyi nga def sa tàggoo bu dul tàggoo. Eh, ci ñi nga xam ne bi ñu ngi lay seetaan à travers la télévision Touba TV wax sa allah. waa di kontaan allah. parce télé yi bëri na mais boo xoolee presque benn euh, émission ngay gis euh, boo euh. defee si kii émission bi moom ngay defaat ci parce que man télé yi dañ may invité souvent benn laaj bi ngay gis benn image bi ngay gis benn émission bi la presque ah. dëgg la rek ñooy wute. mais macha allah fi ngeen génn tey moom c'est extra macha allah. ndeysaan waaw di leen remercier baax. parce que tuwaan pël sori na ngeen dagg seen i nelaw fajar gi. ndeysaan ah ñëw ànd ak man kër ga gis nga yoon bi ni mu soree. Ah, une heure de temps et quelque lépp ngeen ànd ak ci contentement sawar mu leer ma ne li ngeen def lu ngeen bëgg la mhm. maîtriser wu ci ben yoon di len wax hmm. nah, ni japp to baye rek sha allah. sen télé bi ci kaw ci kanam cameraman bi tam sox tonton bi nga xamne mo dawal tonton Ndour waaw tonton sha allah yeen tam dal équipe bu sha allah ngeen yalla na yalla gën leen jubale gën len baye ndax ni ma len gisé tay dal ah man est ce que duma ñew sa bokk ci émission non da ngay ñew da ngay ñew ndax man dama bëgg allah da ngay da ngay téléspectateur Euh, Touba TV bu baax a baax a baax. dëgg wax ne xoolal fi ngeen ko kal fii rek la. fii rek la fii la fii la. fii la mburu ma xoyom xoyom <laughs> waaw léegi xam naa rek ñu may sa télé numéro téléphone rek. waaw numéro de téléphone du monde 77. 533. 36 91 ou 76 282 000. mu TikTok bi YouTube bi mu ngi Instagram. Mhm. et cetera Que euh, Snapchat. tout mhm, mhm. mu ngi foofu macha voilà Ndeye Marie Balla Gaye moom fu ngeen ko tàppalee macha allah. gis ko jërëjëf <laughs> waaw kon mu mel ki euh, tire à sa fin euh, di like laaj ndax li leen indi loon tey macha allah gis ngeen ci ndax nak ñun liñ ci djublu rek moy wone coono bi nga xamni tay mi ngi koy daj nga gis ni amul goor amul jigen amna yeen yenn yo xamni ci goor lañ ko set setlu won mais mom moom Tivaouane Peulh ba HLM nga def ko le matin le soir nga defat ko de tes propres moyens machallah di goor goorlu créer fi sa famille ci marché bi créer fi sa emploi kon yeen jeune yi lay wax di leen wax ni y a pas de son métier dugg leen ci marché bi liggey leen gëstu leen gëm leen sen bopp il faut créer il faut créer son son propre emploi sax lay wax bul tok di xaar xaar da lay tardel da ngay nek ci yoon yu bu ko defé ku nek ci yoon yu patient ci and ak yow da lay talal loxo kon soxna Ndey Njaay ñu ngi lay jaajëfal yow tamit ci yombal gi nga ñu yombal liggéey bi ndax xaar nga ñu ñu départ ñu nit ñoo fekk ci le sa nga tok xaar ñu andat ñu fi fii allah bernde yi fi dara jeexu fi kon nak ñu ngi lay jaajëfal bu baaxa baax cant ak ngeeram ñen na la jaajëfal bu baax pap Omar Diop ñuma andalon sama cameraman bu mag bi tonton Ndour suñu chauffeur bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci marché bi tay tey émission Daan Doole di leen jox dig inshallah prochainement sur la télévision Touba TV mardi nak inshallah à partir de 14h bay leen ko xel ci Touba TV.